kii tabax na ba dëkk am na ñoo xamante ne ñu ngi doon tabax mais depuis usine bi ba tey jii amatul kenn ko am possibilité wu ñëw tabax ndax lan xet gi nga xamante ne moom lay bi ñu ngi ko de eh, installé ci biir lotissement boo déggee ma ne man gëmatuma étude impact environnemental damaa jàpp ne ablotissement bu 1124 personnes 1124 pères de famille war fee dëkk ñu implanté fi usine de farine de boo xam moom a teree daw dëkk seen i kër yaakaar naa loolu ndax xet gu bon ak ndox yu bon yi nga xamante ne mi ngi koy tuur si suñu lag bii ndox yi fii jógee mi ngi tuur si lag mbawaan bi te lag bi comme ni ma ko waxee démb dafa nekk ci nag baykat yi mu leen dimbali si roose mais lac bi dafa jigéen nappe phréatique bi nga ne moom lañ mooy forage bi ñuy naan fi mu nekk nii Kayar moom ubbi robinet yi foos lay xëy ndax la li muy vidéo loolu lay dem di ko tóor ji fecc yamul foofu mu wëlbati ko waat nekkaat si biir dëkk bi di jaxase nit ñi dóorante bopp bis sax ku dégg bëccëg ba tey ñu jël ñenn si ñoom ñoo doon suñuy suñuy camarade ñoo ëpp ñu courage téeméeri junni yoon nekk ay bañkat ñu jël leen dugal leen si kase bi ndax lan dañoo contre usine ñu ñëw di leen euh, accuser ay ay comb cambriolage cent vingt cinq mille francs si koo xamante ni but maanaam entreprise yi mu juddee c'est des mille c'est millions nga koy nga koy ay cent vingt cinq mille francs da nga dugal si ngir lan xoqatal leen mais moom xamul li xamul li xew parce que bi kenn mënu ko téye loxo

lii ñu def tey jii nii benn alerte la bu ñuy joxe muy doon suñu dernière alerte tamit li ñu dégmal si suñu kanam lépp ay jëf lay doon mais dootul doon wax parce que li tax ñun pareetuñu pour toog di dund ak lii nga xamante ni si saa bu ñu yeewoo mu ñu gën a rey te lii ñuy def ni ñu leeral ni président de la république yam nag yëg na ko parce que man le vingt juillet bii passé bokkoon naa si de la pêche nga xam président day recevoir bi wax duñ doon wax si d'une manière globale ci li nga xamante ne usine farine de poisson

nañu xam ne askan wi dañoo sonn nit ñi dañoo sonn. waaw tey jii nii mën naa laa yóbbu si kër yu bari ni ma ko dafa nekk usine bi gis ngeen fi en place diggante ñetti quartier la ne quartier kër Abdou Ndoye ak ak kër Abdou Ndoye ak ak ak ak Cité yi si tey boo fi demee am na ñu fi tuxu bees dañoo dem ba ñoom seen jëm moom mënatu ñoo dund dund ko normal seeni doom yi ndaw yi dañ leen di yëkkati di leen. ci 25 janvier 2022 ay Samba boy yu dugg ci usine bi. goudi vers 2h du matin dadi yenn bunti yi euh, wax deug yalla djublu jubluwuñ ci yàq dafa melni xaliss lañ doon wër ndax tasaare ni document yi xol euh, jël fii lu tolloog deux cent trente mille bariwul euh, daal di daw dem ci benen usine bu nek à côté bu nek béer bu ñuy wax ndam fofu tamit ñu def lu mel non waye fofu yalla dafa dogal ñu gaañ gardien bi ci loxo fi nak ci barna Sénégal yàlla dogal defuñu fi dara ñu fi kenn wax deug yalla y aucun problème

sama mbokk la sama xarit la sama jaam la parce que défendre Sénégal li ma ko waxoon au départ ndax am na ci xale yoo xam dañ doon défendre Barna Sénégal ci projet bi dañ doon défendre dossier bi ñooñu ñun on a de la peine ci gis leen ñu arrêté leen ñu nekk ci yenn conditions yi ma ne ko actuellement su leen justice tegee loxo dañ leen ni jiiñ waxuñu ni ñoo def ci li ñu xam ñun ci yoon dañu war a jàpp ni ñooñu dañ leen war a jàppale wutal leen avocat ma ne Mamadou Ba li nga war a def mooy xool famille ñooñu ñu jàppale leen seen njaboot jàppale leen seen famille te fexe wutal leen ay avocat ngir dossier bi mu leer te it ñu ñaan yàlla mu leeral dossier bi waaye ñaan yàlla suñu dëkkandoo yooyu nga xam ñun ak ñoom benn lañu suñu ay mbokk lañ ñoom ñu war a bañ a nekk ñi nga xam ne ñoo def jëf yu ñaaw yooyu ci ñaari usines yooyu kon loolu ñun dañ koy partagé suñu toogee tey la ba ay ñoo xam ne dañoo bokkoon ci ay nit yu contre Barna Sénégal depuis 2016 ba mu nekkee terrain kese ni Barna du fi amee projet bi dox ñu miiree ko ñu ne du fi amee ñu tabax ko ñu ne du fi amee ñu monter machine yi ñu ne du fi amee ñu produire ko ñu ne du tàkk depuis mai 2020, mille vingt euh, deux mille agrément bi ñu desoon du ministère de la pêche ñu jot ko gannaaw bu ñu bi nga xam ministre de l'environnement depuis ñu jot ko commencé produire il y a un an et demi ñooñu nga xamné Greenpeace dañ leen daan fay ñu ñoo xamné bo boo ci dëkk euh, investir ci projet faaw ñu gis loolu seen bop te wax dëgg yalla ñooñu samay mbokk taalibe talibé dañ duma leen wax dara ndax musuma tontu te du ma tontonte ak ñoom ndax wax dëgg yàlla samay mbokk taalib lañ samay jëwriñ lañ waaye li ma ci ñaawlu mooy boole gi ñu boole ñoom seen xeex bi nga xam ñemeetuñu woon wax